الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مكو سنغال مكو أدنبي بي مالكيا تيفي لير مولو موديكات أكيين تي سن إميشون بين تودي الإسلام جنكوي أم سمين بوني تي وقتوي تي أندك سن مكو بولين ينيو professeur Cheikh Ahmed Tidiane kebe di ko ñaanal yàlla guddal fanam yokk wéram ki koy présenté di seen mbokku taalibe imam Jabel Kouaté di nuyu ñëpp di ci jiital alxalifatul am li tarixati tijaaniya Serigne Babacar Sy Mansour yal na yàlla guddal fanam yokk wéram yàlla sàmm ko sàmm njabootam naa lii mu am bi ci jiitu di juma Tiwaawan yal na ko yàlla may gudd fan ak wér ba liggéey bi àgg mu jiite ñu ko incha allah ñu topp ci ginnaawam nuyu rakkam euh, le prince suñu soppe suñu bàyyi Cheikh Al Hadji Malick Sy Maodo ñu koy nuyu diko ziar diko ko ñaanal yàlla di nuyu le recteur de l'université de Tivaouane di Serigne Babacar si Abdoul Aziz sama wasila sama kilifa ma ngi koy nuyu diko ziar diko ko ñaanal yàlla bu baax a baax fa tabarakallah di nuyu wa alamin islam yeb nuyu mbollem khalifa yi nga xamni ni ngi ci rew mi ñi ngi leen di nuyu di leen ziar. di ñaanal Maxtaan Ndiaye al Amin yàlla guddal fanam yokku wéram naa lii mu am ci kër maamam Cheikh El Hadj Malick ak ci diine yàlla na ko yàlla may gudd fan ak wér bu mu ko àggalee bi jaay seen na Muhammad sallallahu alayhi wa ñu ngi leen di béggee yéen téléspectateurs Malikia TV di leen wax bonne et heureuse année 2022 di ñaan suñu borom yàlla na doon atu naa tànge atu xéwal atu jam ak sutura bi jaay sidna Muhammad sallallahu alayhi wasallam professeur assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax ngi lay fay professeur di am mbégte lol comme ni koy waxé sa su nek fek dog yow ci émission bi di ci contane lol bu baax a baax di la nuyu di la ziar di la ñaanal barakallah di jël sama nuyoo sof ko ci sa nuyoo ñaanal suñu khalifa suñu serigne شيخ الخليفة سرين بابا كرسي محمد المنصور حفظه الله ورعاه وأيده ونصره وأدام صحته ومتعنا ببقائه مع جميع الأسرة المالكية آمين يا رب العالمين ونكوي بو باخ موم سرين بابا كرسي منصور نيانال كو لينكو نيانال رك نالي مو نال ييب والله يان كو eggale ba tàmbali war yeneen eggale war ko di tàmbali di eggale rek tabaarakallah nuyu le prince des poètes suñu sëriñ suñu soppe suñu soppe suñu nijaay suñu bay Cheikh Alhaji malik si abdul Aziz yal na yàlla may ko wér yok wéram ak fanam ziyaare ko bu baakha ba di ziyaar suñu serigne suñu soppe suñu soppe rek tabarakallahu serigne babakar si abdul Aziz diko ñaanal wér ak guddu fan yàlla may ko naal yimu naal ak mission bi nga xamni maam tek nako ci loxo muy daara ji université bi yàlla nako yàlla may ay étudiant di ci génne di yor euh, raaya bi nga xamante ni moom mooy mission am ñaanal njabootu Cheikh Alhaji Malick yëpp rek tabarakallahu nuyu Cheikh Mouhamadul Moustapha Sy Al Amine ziyaar ko bu baax a baax nuyu euh, moom laa tuddee le gardien du temple le gardien du temple voilà ndeysaan walaay walaay mu taxaw ci mission magam ak i baayam wutu fa ñëpp macha allah ci daara ji Serigne Babacar نيو أي مقام أكير كم يب تبارك الله نيو مام حلف كبير يعني يالو قدل فنم يالو يكويرم قدل فنم يكويرم منك سكت نيو يب تي حضر بي يب تبارك الله مساج دي باي حضر بي نيو كي زيار بو باح زيار حاج مختار كبير سيني بروفيسور عبد العزيز كبير سنيو كونسي أكثر حبيب كبير سما سرين سما ماتر أوسي كو زيار نيو بس زيار س ويجوري وتد سنيو ويجوري نيو لين زيار يعني يالو دفتر أمين تبارك الله لول مو نيو بيرك nuyu nuyu alxaaji Maxtaar Ndiaye al amin aussi al amin di ko ñaanal di a baax yàlla ko wéram di ko ndokkeel ci xew-xew yi ci xew-xew yëpp incha allah barakallah professeur balaa ñuy tàmbali émission bi sama première question ñu nuyu ak di ziar bu baax sëriñ Babacar Sy Abdoul Aziz wallaay sama wasila Euh, wax naa la ko. ci saa si ba ma wooyee ci laa la woo. tout fait euh, ñu yëg ni kon lii ñu nekk mission la ma ne ko ñoom ñoom lañ fi toogal. dëgg ñu ngi koy ñaanal yàlla guddal fanam yokk wéram mhm. euh, kii ci encouragement yooyu. waaw mais mbégte ba ba sax yokk ci waxtaan bi pour wan la ni ngi woon. au cœur ci waxtaan bi ci ay ayat quraan yi ci déggam. ci xam-xamam effectivement. fa tabarakallahu yokkal yokk na ci lu bare bari loo xam ni. dëgg la fa tabarakallahu dëgg la mu nekk keroog mbégte bu rëy bi nga ma ko waxee sax dama ne la yëg-yëg bi ma yëg moy yëg-yëg bi yonent yàlla musa alayhi salam yegon bi yàlla ne faxlaxna alayka innaka bil wadi al muhaddas muhaddas tu wallahi ne ko innani ana allah wallahi la ilaha illa allah mo Seydina musa bu dege bat mo ne ko innani ana allah waaw am na lu mu yëg am na lu mu yëg bi ma ko waxee tam loolu laa la wax ñëw yëg-yëg bobu tam la yëg wallahi kilifa gu tol non ma sha allah di suñu serigne di suñu kilifa nek lépp ci ñun. dëgg la euh, di ñu topp. Mm-hmm. ba pare jël téléphone am. Mm-hmm. woote. Mm-hmm. joxe ay encourage am encouragement am. ñaax ñu ñaanal ñu surtout aussi. loolu mbégte bu rëy lañ ci am. loolu voilà loolu dafay wane miin gu ñu miin njaboot. ak bëgg gu ñu bëgg njaboot. xam nañu ni ñun dañuy jéem. waaye ñu ñuy topp di ñu encouragé. loolu daf ñuy may fit. daf ñuy yokk tamit ngëm-ngëm. ci li nga xamante ni ñoom ñoom ñoo ñu ko sant. parce que lii lépp seen seen diggal lañ koy defee. buñ ñu woon taxaw leen ñu taxaw. buñ ne dem leen ñu dem. kon nag bu ñu dee suivre du ñu mhm. ñaanal mhm. tabaarakallahu loolu mbégte lañ ci am mbégte bu rëy rëy lañ ci am ñu ngi koy gërëm sëriñ Babacar Sy Abdoul Aziz moom lañ fi nekkal mooy le professeur euh, lu ci yàqu rek insha allah wax naa ko sax ma ne ko papa lu ci mu mën lépp rafet ndeysaan jërëjëf na yàlla na yàlla fay di nuyu Abdou Hamid Sy sëriñ Abdou Hamid Sy effectivement di nuyu sëñ Mansour di nuyu sëñ euh, Habib Sy bu hmm. sëriñ Mansour borom daara yi effectivement du ma dañ di ko gërëm di ko sant di ko ñaanal hmm. yàlla yokk ay taxawaayam تبارك الله صلى الله عليه وسلم بروفيسور لولو نوي لين عبد الحميد كرو نعم. وانا حاج مختار فوالا يواني نيو أه، دي واني انكوراجمون دي ميغي ميغي سيو ما شاء الله سوما نياي راك سيرن مام مالك سي اك سيرن شيخ محمد سي دي دوم خليفه بي نيوميت كرو وارن ما تليفون ني وقتان تي اميشن بي تبارك الله effectivement نو فريمون سو نيفو بي موم نيفو اكاديميك لا نيفو يونيفرسيتير لا اي سي تريز امبورطون الحمد لله فوقنا لولو تي ام ام سولو بروفيسور نيغي وون تي مفهوم الشباب effectivement مفهوم الشباب Euh, manam sax dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko teunk ci naka la Cheikh El Hadj Malick déggee jeune ak jeunesse. effectivement nga xamni ñoy l'avenir euh manam du pays. wala c'est-à-dire de la nation tout entière suis euh, le la koy euh, le président poète monaco mm-hmm. parce que la le président poète mais aussi un destin pour l'Afrique. ci mm-hmm. biir passage jeunesse tu je te dirai quel peuple tu seras donc rôle ama am solo. actuellement héritage sur le plan politique. Mm-hmm. am sur le plan religieux. ñaar yëpp am na yu ci yu ci bëri yoo xam ni. Mhm. Euh, niñ koy doxalee tey bokkul ak mag ñi nañ ko bëggee woon parce que dañuy xër rek xam nga ndaw day am kàttan di xër. Mhm. foog naa mu am xel goo xam ne jóge na ci ab mag. Mhm. mu mën ko orienté lu ci ama am solo la. nga duggoon ci ahamiyatu shabab fi mujtamaa maanaam ban. Euh, importance la jeunesse am ci déroulement mhm. la société ci la société ci la société ndaw de am rôle bu ama am solo nga andi won ay exemple ko ba ci temps bi alayhi salam qui ndaw responsabiliser temps bi ko mhm. ñu euh, professeur ñu jël suñu de ak suñu feuy noté magistral bi nga bëgg jox ñi imam mhm. tabaarakallaahu ñu ngi lay sant aussi tam yow bu baax a baax ci ni ngay déroulé émission bi mhm. euh, ndaxte tabaarakallaahu bu affaire yi day jaar ci yoon rek mhm. yaa koy orienté mais xam nga étudiant bu amee cofeel ci professeur am day yàq ci day yàkkamti kuuram <laughs> donc voilà waaw c'est-à-dire moo tax cours bi di neex parce que xam nga xam nga ñaari nit ñu seqee cours te ñu ngi ñëpp soppante daanaka doo bëgg sax temps donc loolu mooy tax xëy na ñu ngi xër rek di def te yal na yàlla sàmm amiin amiin yal na yàlla yàggal ci amiin professeur bismillah professeur bon daanaka yow euh, def nga euh, synthèse la ñu jotoon waxtaanee yëpp nit ñi comprendre nañ xam naa ne sax ku eggalewul émission bi di ko seetaan. Mhm. bu demee bu maanaam bu bu ko bu ko eggalewul tamit dina xam fan la émission bi jël. exact incha allah te loolu moo am solo loolu nga def. léegi ñu ngi woon ci importance bi jeunesse am ci société parce que jeune xam nga bu ñu waxee télé Malikia amul benn thème boo xamante ni ci àdduna bi imam mënees nañ koo développé te waxu Seydi Hadji Malick ñëw ci. dëgg la séddage mooy mbirum maanaam dafa global. ñoo sumul ya billahi li Serigne Cheikh waxoon ne xaw ma rawxaan mbay moo ne kon Maodo kulli la Maodo. waaw lépp la lépp la. effectivement donc moo tax amul benn thème booy abordé dans la société. ak thème bu mu mënti nekk waxuma rek di diine. mais lu te njàngale mu Seydi Hadj Malick du ci feeñ. radiyallahu anhu ndax bo xolé ay ouvrage am moy toll donc motax ñu ne tay thème bi dañ koy def mais dans la pensée éducative de Seydi Hadj Malik fi fikri tarbawi li Cheikh Hadj Malik Hadj Malick léegi nag importance bi jeunesse am bu ñu defé lool ba pare après ñu indi ma Maodo nak mom naka la ko mën naka la indé incha allahu taala légui ñu doon wax ci importance bi jeunesse am dans la société ba waxon nga ko jeune daan waxon na la ni la histoire humanité bi yëpp adduna bi histoire humanité bi yëpp depuis antiquité jeunesse moo nekkoon muharriku taarix maanaam moo hmm. nekkoon le moteur de l'histoire maanaam histoire bu doon oto buy daw la adduna bi bu doon oto bi moteur bi hmm. nga xam ne bu amul ci oto oto du daw hmm. jeunes yi la est moo tax amul kenn koo xam ne jot na responsabilité yàlla jox ko responsabilité te fekk yàlla dafa bàyyi ba mu nekk mag amul Mm-hmm. yàlla ba mu lay jox respons képp ku mu jox responsabilité rek mm-hmm. ba mu ko koy jox ci ndaw la ko la ko dëgg la dëgg la loolu mën nañu yonent bi sallallahu alayhi wa mm-hmm. yàlla yónni na bi sallallahu alayhi wa sallam ala sinnil dëgg la mu yónni ko ci âge 40 ans te 40 ans foofu lañ di jotee kattan ba balaxa ashud أشده, أشده. لولا القرآن واحد بكي شيخ الحاج مالك بمكوي مثال نعم. والله أرسله للعالمين هدى ورحمة إذ مدى جزل تخي بيان ولا باسكو باتو جزل بي دا فاي فيري 40 ان مي جزل تام دا فاي فيري 40 كابتن افكتيفو لو في مسوده مثل اشتعال النار في جزل الغضب تبارك الله xam nga li moo tax nag toog ak borom xam-xam. yaay sama yaa <laughs> xam moom nag da indiwaat. kon ku yàlla di yónni. ci ba ngay am kattan. ci ba ngay am kattan. Mhm. nga xam ni li nga réalisé yëpp ci sa jeunesse nga war a réalisé. Mhm. jëzlun li nga ko firee. dafay mhm. firi. 40 parce boo ko déchiffré par mais dafay firi tamit dëgër. loolu ñu tuddee tawriya ci balaaxa. nga xam ni day am ñaari sens. xam nga. et eh, Mame Maodo radiyallahu anhu jàngal ñu loolu mhm. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ko à l'âge de quarante ans te Mame sax nga xam ne moo jàngale loolu li mu réalisé bi li mu réussir yépp ci jeunesse am la ko lu mu réussir ci àdduna bi mhm. rek mhm. ci jeunesse am la ko réalisé ci lu wér yow mi seetaan déglul imam Seydi Hadji Malick radiyallahu dix-huit ans hmm. fekk na ñu koy woowee professeur billaahi ci la jot ijaaza beeg lu jot li mu jot yépp ci dix-huit ans am avant muy am ñaar fukki at bi mu amee fukki atak ak juróom-ñett ci la ko Cheikh Alhaaj mam nijaayam am alfaahi mooy yore wele mhm. jox ijaaza bi bi ko Cheikh omal jotoon mu jot ko xam nga kooku ndaw la allahu akbar te boobu ñu ngi koy woowee professeur fekk na boobu mu complet complet di lal daara di jàngale bépp matière ci Cheikh Alhaaj Omar kon 18 ans xam nga kon kooku préparé na ndaw wallaahi vingt cinq ans imam mu taxawal kër vingt cinq ans a taxawal na kër الله اكبر خم نقول وهي تخول كل ميسي في دغ لا خم نيت كي ديما موم خليفه كيب يالنا يالو غدا فلام دي وخني بو امون سان تيتر فونسي تي اموغو سخنا تخول لوك واه لول دغ لا خم واه لي بوزر اه لول دي توركال xam naa téléspectateurs yi <laughs> waaw incha allah sama benn professeur bu baax bu tudd Cheikh Tidiane Kébé yàlla na ko yàlla may soxna su baax dama am xarit bu tudd Cheikh Tidiane professeur bu baax waaye ah, waaw maa ngi ko ñaanal soxna su baax waaye tabaarakallah xam naa yéene ko ko incha allah kon daal mu ni boo amoon téeméeri kër te amoo soxna waaw kenn nekk goo borom kër ci mag ñee mën a jàngale Pape Khalifa Kébé ko wax yàlla yàlla guddal amin yaa rabbi amin mu ne aussi tamit boo amul benn titre foncier bu nga amee soxna ñu ne diw taxawal na kër dëgg la dégg nga Seydi Hadji Malick vingt cinq ans mu taxawal kër radiallahu anhu radiallahu anhu 33 ans mu aji màkka dëgg la. te bi muy aji màkka ajiwul màkka ci ay yi. daf def la de son front. effectivement dafa liggéey di di ba am. bay ci le. kay bay ko. Mhm. ba am bénéfice mhm. dem ci màkka. dëgg la avant muy dem màkka ci la bind abada bu effectivement. avant muy dem màkka def na ay ouvrage kon xam nga ni xam la bi mu def na fa deux ans. ba pare ci màkk mu doon def munaaxasha ak borom xam-xam yi nekkoon mbir ba ñoom sax ñoo ko wax ne ko dellu Sénégal histoire ba duñ ci ñëw mu dellu si donc bi muy dellu si mën na am ay trente cinq ans trente ans yooyu mm-hmm. gis nga bi mu ñëwee trente six ans yooyu noonu mu mm-hmm. defal mu dem njaarde parce que ñi mu formé njaar ñi mu formé njaar na ñëpp bi mu leen di mm-hmm. formé punkal yooyu ngay dégg mm-hmm. ay sëñ Hadi Touré Mamour Binta Sy mm-hmm. Mamour Khoudia Sy Mamour Aminata Sy Mamour Aminata Kébé sëñ Hadi Touré euh, sëñ Alioune Alioune Guèye waaw sëñ Alioune Guèye sax Alioune Guèye après deuxième vague bi la waaw sëñ Alioune Baba Mbumba Ngéewul sëñ Babacar mm, Al Alawi punkal yooyu ñëpp bi mu leen di formé boobu amagul 40 ans ca Ndiarndé ca Ndiarndé. ca Ndiarndé. اي شيخ الحاج كون ديغنت 40 عام غيس نغ شال الحاج مان لام ديمو رياليزي تي ادنا بيب تي جينيسام لاكو رياليزي دغ لا دونك ديغنت 40 عام 45 عام يوي نون با كيرو مي ام 66 عام دي وجي بروم داف دون سوبرفيزي اك ديفرات مي فك نا ديمو رون تخاول تخاول نكو تي الحاج مالك رضي الله عنه رضي الله عنه كون لون مو ني جانغال ني جون يالا كومو جوخ ريسبونسابيلتي جون مو داف كيسيون بيغ لا اهميتو شباب امبورطانس بيغا خا ني جون ام نكو دار لا سوسيتي مو داف ما دالو نكو تيد كي صلى الله عليه وسلم يالا بيم كو يوني mi am 40 ans. dëgg la wa axaatahu bi shabab. ci mu wërale ko ay ndaw. yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu wër ñu ko mu formé leen jàngal leen ñoom ñëpp kenn ku ci nekk ndaw la parce que amul mag bu ko wër amul benn mag ñëpp ay ndaw lañ mag ñee ko weddi dof la nii naan ko majnuun wérul waaw yàlla tàggatal ko ndaw ñi mi ngi noonu ba mu ne فحالفني الشباب وخالفني الشيوخ والله من داو نيب ديكل نان ما نونت ما ني اكسيغو ني دغ لا مي داو ньоني لي ньоم ньо ايغال ميشن بي فيغا خام مي اي داو غور دي اي داو جيجن دي نان نيو تي اكزامبل يوي ان شاء الله بي ني جوخي اكزامبل داو يي ورون يونتي بي صلى الله عليه وسلم غيس nga سيدنا ابو بكر صديق رضي الله عنه بي مي بي مي توك بوب 38 عام لام 38 عام داف لي مي داف عمر ابن الخطاب 28 عام عثمان ابن عفان 20 عمر 32 عام علي ابن ابي طالب 18 عام Mhm. kon yàlla ay ay ndaw ay ndaw la ko wëraloon ndaw yoo xam ndaw yu am taxawaay ndaw yu am mhm. paspas ak ñeneen ndaw yoo xamante ni mhm. ñoom ñoo wëroon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dinañ ñëw ci seen ay misaal eh, ñëw léegi ci moom turam Abdullahi ibnu Omar seen ibnu Abbas aydan Mus'ab ibnu Umayr yaa ngi wax keroog rek boo demee ñu wan la bàmbeelam ci Uhud ñun ñëpp nag يالله ورلهم دونك لو شباب جنس ام صلو موي فالشباب اذا صلحوا نعم. نهدوا بامتهم نحو التقدم والازدهار الله اكبر الله اكبر تاغاتي با نيو مل ني نيو ورا مل نيوم دا نيو dañu ñëw fexe. Mhm. yóbbu seen réew. Mhm. jëmale ko ci développement. Mhm. yóbbu ko ci épanouissement. dëgg la yóbbu ko ci effervescence. réew mu développé ci àdduna bi rek. ndaw ñu tàggat nañ leen. defar leen. ba ñoom ñu taxaw defar seen réew. kon politique jeunesse. bu échec ci réew. effectivement réew moom noom moom na jàpp ne échec na. amul werante échec na tamit moom na leer bala moo taxawaat yàlla rek ka xam. sëriñ bi loolu jar na bàyyi xel jar na bàyyi xel donc foofu nag. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci mission am état bi mu yoroon muy dawla islam yi avant sax muy dem Màkka muy dem Médina Màkka ña fa nekkoon fexe na ba tàggat ndaw ñi ba defar leen ba xam nga imam awwalu mu assasa fil islam première université bi am ci islam recteur ba ndaw la woon recteur ba amul woon vingt cinq ans muy ban daaru arxam daaru arxam الأرخم ابن أبي الأرخم أرخم. من نكون ركتور إنفاستي بي يوركو يرنتي بساسم نكتي سوف سفا دينا جنجل سين دينا تبوب أرخم أمل دارو الأرخم من نك بريمير مؤسسة الله أكبر بريمير إنفاستي بي يرنتي بساسم توك يرنتي بي إنفاستي دينا دقلا تي كماس مالا تي دوير مو توك إتجان يوركو ني إنفاستي بام نكون فام نكون دارو أرخم له arxam moo nekkoon recteur université boobule yonent bi salaa sallam nekk ci suufu safa di leen jàngal seen ay seen diine. macha allah kon kon nga gis loolu. waaw góore waay. ay ndaw wër ko mu jàngal leen former leen. Mhm. dinañ ñëw sax ci fin mission bi. incha allah ndax wax ci ndaw yooyu rek waaw léegi ndaw yooyu nag. imam mhm, mhm. dañu am ay force yoo xamante ni. xam nga kon déjà wax nañu importance bi ndaw. yaa ngi ma laaj importance bi ak force yi. force yi donc importance bi wax nañ ko. mooy réew. ndaw ñu fa nekk rek. bu ñu baaxee réew ma baax. Mhm. wax nga léegi li président Abdoulaye Wade wax. yàlla na yàlla def amiin yaa rabbi waaw sifli shababaka. Mhm. asfilaka al mustaqbal allazi yantaziruka mhm. wax ma yan jeunesse nga am. ma wax la sa ëllëgu réew. wallaahi mais nag ñun senegal bu ñu dee déglu ci bu ñu dee déglu ci rajo yi. di xool ci télévision yi. ñun suñu ëllëgu réew daf ñuy tiital. ci lu wér a wér. parce que ndaw ñoo xamante ni boo dee déglu fecc bi. non musique bi violence moom violence surtout violence. surtout violence moom moom. mooy mooy violence moom mooy ndaw ñi léegi dañu violent au Sénégal ci seen wax. ci seen commentaire ci seen ci seen jëfin. waaw dee gi bari na. et puis ñi ngi leen di utiliser di ancrer ci ñoom yoo xam ni bokkul ak sax suñu réalité. déedéet déedéet bokkul ak suñu aada bokkul ak suñu cosaan. te loolu bu ñu ñëw ci mm-hmm. fin ci réseau mm-hmm. ci ci yi mm-hmm. Serigne Cheikh Tidiane Sy indi solution yi ci indi incha allah bu ñu dee ci mbindum Mame Maodo rek waxoon naa ak njabootam ak njabootam parce que ñoom ñoo commenté ay waxam nga booy jàng mazahib yi bu ñu ne la al mazhab baatu mazhab duñ ko dinañ ñëw dinañ ci ñëw émission boo xam ne incha allah dinañ ci kii parce que ñi ngi préparé émission sax ci wàllu usulul fiqh incha allah taala effectivement yooyu yëpp dinañ ci waxtaan ak ان شاء الله بني مذهب مالك ان شاء الله تميو يال نكو يالا امين يا ربي سني مذهب مالك واو اتي يا فا نيك نيكول اي اتي امام مالك رك لا مي اي طالبيم léeg-léeg ay taalibe seen i at tam ci mazhab bi la bokk maanaam rayu Malik ak aara yi nga xamante ni ay taalibeem ñoom ñoo ñoom ñoo ko amee loolu loolu moo constitué mazhab mais li nekk ci mazhabu Malik yi wala Abu Hanifa wala Ahmad ibnu Hanbal yooyu yëpp nekkul ni ñoom ñooñu rek ñoo ko wax mais ak seen gisinu taalibe loolu nag si dahagement dafa am mazhabam mooy école bi nga xam ni moom la am moo tax man dinañ ñëw ci ay njabootam loolu laa doon wax moo tax man la ndaw ñooñu nag dañ léegi bu ñu dee xool ci télé yooyu daf ñu tiital mais nag léeg-léeg nga dem ci benn daayira nga dem ci benn daayira boo xam ne soppe imaam jabel la nga fekk imaam jabel toog wër leen mu leen di jàngal seen diine ndaw ñooñu gëm sa xel dala leen di tuuti ndax alxuraan nee na kam min fi atin xalila galabat fi akasira xëy na loolu mu dalalee suñu xel ndax xëy na yàlla baax na waaye daal bu ñu dee xool suñu ndaw violence bi bëri na parce que amuñu référence xam nga yàlla gis nga yàlla bu ndaw bu bu amee bu amee benn qualité bi bu amee benn caractère bi boobu le mën na koo may gis nga bu ko amee rek suñu ndaw xam nga dañoo am dañoo violent mais gis nga bu ñu delluwaatoon def contraire bi yàlla dinañu jox mission gis nga yàlla bala moo jox ndaw ñu mission faaw ndaw bi am loo xamante ni moom la war a wàññi ci boppam ci wàllu violence mais yàlla du jël ndaw lu violent mu ko di ko jox responsabilité mu jox la ci misaal ci alquran yàlla nee na yaa yaxya xusil kitaaba bi قوة لم تتك وآتيناه حكما وكان صبيا gis nga fa baatu sabi sax la wax baatu sabiya xam nga xoolal xoolal imam daxaa'iqul alfaaz fi alquran sew sew yi nga xam ne boo dee xool baat bi sew sew yi mu am ci alquran moo tax dëqa bi maanaam bi voilà moo tax alquran kenn du ko firi ci baat bi baat bu ci nekk war nga ko xool wa aatay na yaa yaxya xusil kitaab yàlla jox na yonent yàlla yaxya téré bi mission la ko jox na ko mission bi xuwati ci farlu hmm. bu ko firee kàttan ci farlu hmm. ya ngi deug hmm. parce que xuwa boobule xuwa bi nit ki am xuwa waxoon na ne jeunesse moy xuwa moo tax sëñ Babacar Si radiyallaahu anhu ne ndaw nekul ci âge yu mak newul ci âge yu bari né di nga gis ndaw ko xamanteni mak la waye mi def yëfu xale koku xale la di nga gis xale bo xamne mi ngi def yëfu mak koku mak la kon xuwa bobu moy responsabilité waaw aux âmes bien nées la valeur n'attend point le nombre des âmes mi ngi noonu merci beaucoup effectivement muy muy dëppoo sax alifal muska wala ibadata wal xalwa xalwata tiflan tif lan gis nga baag gis nga tif sax la waa foofu moo tax dinañ dinañ ca Hamziya ba bu imam bu sey radiyallahu anhu dinañ ñëw ci étape yi maraaxil étape yooyu nga xam ne marxala bu ci nekk lu muy signifié ak lan la ñu war a def xale bi foofu nit ki foofu ngir moom mu mën a nekk bu nekk responsable yaa ngi ci aaya bi yaa yaa xuzil kitaab bi xuwatin wa aataynahu xukman yàlla nee na ñu jox ko sagesse atte boobu ci yonent yàlla yaxya wa kaana sabiya foofu baatu sabi la wax gis nga وكان لكن واتينا حكما وكان سبيا يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتينا حكما وكان سبيا وحنانا من لدنا وحنانا بعد بوب il était دو effectivement la muy am quwa yeb waaw la muy am ndax yàlla jox ko am doole ba pare yaru waaw am doole amna na doole yaa ngi dégg am farlu yàlla jox nako mission may neena yàlla neen li tax moy il était doux douceur bobu momo moo manqué suñu jeune وكانت جفرا وزاء ادب زاء ادب بيت بي آه. ليك لا نيو سام بوب مام شي الحاج مالك يونت بونكال لاون ام كاتان مي زاء ادب زاء ادب كو امون تيغينا موتاخ تجيني فوك نان دولي بوكو امي رك دنج كور يوتيليزي فوالا نيو فوك نان الوكو باغا مي دولي شي nga wara andak sagesse sagesse mi non sagesse bob boko ñaké allah akbar sa mission ñak na mo il faut ñu wax jeune bi carrément wal ko ne ko force bi ngay wone force bobu du force physique dolé dédé mais force intellect allahu akbar lu ñew nga jangat ko jangat ko ban taxaway nga ci wara effectivement mhm. li ñew na mhm. togn nañ ma def nañ ma nangam mhm. suma fayo violence dina am mais est ce que dina jariñ sama est ce que très bien est ce que buma toje euh, euh, stade bi euh, est ce que buma toje chez mais xalis bi suma sama xalis bu bay la l'argent du compte lak bus yi lak bus ta après ma ci wara dugg ma ci wara dugg ma ngi tal

loolu il faut ñu jàngal leen ko. dëgg la moo tax jeune nag dafa am ay force yu imam ay ay force am nag. foofu nag laa bëgg ñu duggee ci. maanaam xuwatu shabab. lan mooy force bi. voilà xam nga imam ah. ndaw. waaw am yu nekk ci moom yoo xamante ni. Mhm. li ñuy wax dawaafi al fitriya. Mhm. ay besoin naturel. besoin naturel force bu nekk ci moom yàlla moo def ci xuwa boobu. Mhm. ndax yàlla nee na ndaw mooy mooy force. force boobu nag faw mu def ko. yooyu mu bëgg. yooyu nekk ci moom force yooyu. faaw mu manifesté wu ci moom. léegi nag ñaar moo mën a am ñu ñu orienté ko tegtal teg ko ci yoon force boobu mu def ko ci lu baax. Mm-hmm. wala sinon. Mm-hmm. ñu bàyyi ko orienté wuñ ko yaru yaruñu ko. Mm-hmm. moom force boobu. mu def ko ci safaan effectivement mooy li nga wax léegi. lakk station. Mhm. fekk benn grande surface nga dugg fa lekk la fa nekk. Mhm. Mhm. te xamoon yooyu yëpp après ci yow la. parce que Sénégal ñu ngi naan léegi Sénégal daara alimentaire gis ni mu yokk képp koy borom kër di jënd xam nga ni mbir cher na. loolu ci kan la jóge est ce que lañ yàqoon. nekkul li fa yeekuwaat. dëgg la dëgg la donc dañ dañ ko war a former. force bu jëkk bi mooy at tumoox. at tumoox. voilà donc yaa ngi ci force jeunesse c'est-à-dire jeunesse yéen ñii seetaan ndaw ñi. ñun ndaw ñi insha allahu taala lan mooy force yi ne ci ndaw nga xam ni parce que tôt ou tard mm. di màgget mm-hmm. donc shabab maanaam temps bii nga nekk ci jeunesse mm-hmm. déglul professeur Cheikh Ahmed Tidiane mu wax la lan ci am force yi mm. ak noo koy ndax tôt ou tard jeunesse boobu di nga ci génn su boobaa di nga rëccu te ginnaaw amul mm-hmm. kon ñu déglu professeur force bi njëkk nga ni ak tumoo mooy lan mooy lan mooy nit ki da fay am ay ambition. ambition am projet. c'est ça maanaam dina gis dara. Mhm. mu xam ni lii moom war nako changer. ndaw da fay am da fay am da fay am ambition ndaw bo gis bëgg na changement. dëgg la buñ né changement na waxuñu ñu li la fi bayyi nekkon ci jaamu yalla am na mhm. yeneen yu xew waxuñu mhm. changement boobu. mais di nga nekk ci point point A. point A bëgg a dem ci B. dem ci point B am ay changement yoo xam ne bëgg nga koo changer mën na nekk changement ci sa wàllu bopp. Mhm. mën na nekk nga bëgg a changer sa famille. mën mhm. sax nga bëgg a changer sa sa sa penc. très bien maanaam am aspiration. am aspiration aspirer à nangam. à nangam man sama option lii la. c'est ça fii laa bëgg a jëm. tout à fait allahu akbar. taxay yuraat yooyu la ndaw da koy soxla. dëgg la loolu ñu tuddee tumux. léegi nag loolu bu ko ndaw li amee nga xam ni bu bu dara yëngatoo rek daf koy exploiter. ci kooku boo ko tàggatul ci lu baax moom pour mu changer dundam dafay dem ci li nga gis léegi di jaay drogue. Mhm. wala muy. bu jaral na ko mu tuur bakkan jaral na ko lu lu wala mu dugg ci gaal gi dugg ci gaal gi wala mu ngi noonu su dugg ci gaal gi jaral na ko cambriolé mhm. na am alal mhm. parce que parce que société bi Sénégal suñu société mooy violente société bi parce nit ki boo amul dara nekk ci famille mhm. duñ la compter dëgg la boo bëggee sa doomu ni jaay sax ñu ne yoroo keneen jóge fa takk ko dëgg la nga xam ni kon yow ñàkk am rek moo tax ñu xañ na ko kon bëgg nga changement dëgg la mais bu ñu la yaree nag da ngay dal liggéey ba yàlla may la li nga am. ko ci anam bu leer. am na solo. liggéey ko ci anam bu lew. macha allah loolu mooy tax yow ndaw ndaw li. Mhm. tumax tumax boobu. ci loolu nga mhm. mais bu fekkente ne. orienté wuñ important voilà. bi la orienté wul imam nag. Mhm. ndaw li da dugal ci anam boo xam ni. dëgg la société bi muy mujj gaañu. wallaahi mooy li nga gis suñu société bi mu am nga xam ne ñoom ñoo yor muy état bi. ak euh, parents yi. parents yi ak kilifa yi diine yi. war nañu concentré wu ci ndaw li fexe ba def ko def ci moom noo xam ni. ambition yooyu mu am. ci lu baax rek la koy orienté. bëgg la boobu mooy ñaareel bi. Mhm. ñetteel mooy alxamas. alxamas mooy njàmbaar. Mhm. njàmbaar. Mhm. xale day bëgg toujours bu dara amee rek moom victoire am di feeñ. xam nga. day am njàmbaar. lu compétition bu am rek. ndaw dafa bëgg di gagné. xam nga léegi nag loolu bu ñu ko ci tàggatee ci lu baax. moom ci compétition lu baax rek lay dem. saabixu ilal xayr ila saabixu ila maxfiratin min rabbikum waaw. والسابقون السابقون اولئك المخربون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ايات يوي لا فيك نداو لي ني تاغات كو تي انام بو خامتيني موم كومبيتيشن بو امي رك تي لو باخ مانام دينا فخي با والو خام خام بو بوك تي نفاي راو والو نجوب مو بوك تي نفاي راو لب لو خامني لو بوزيتيف لا رك مو بوك تي مي اوكا اشيا بو فكنتيني يار اورينتي وني كو تي لولو لي غي غيس موي لي غي ديف فك تي لامبو جا fekk ko ci arène nationale fekk ko ci sta ci stade bi nawetaan yi nawetaan yi xoolal mhm. nawetaan yi da ngay dema dem ba nawetaan la quwwata illa billah am na sax dëkk yoo xam ne président jël na décret na nañu arrêté effectivement nit ñoo ñàkk seen bakkan ci nawetaan te ay ndaw la ñuy doon te ay ndaw da ngay romb benn koñ ñaata leen seen oto yàqu nga dem ci benn koñ ñaari koñ ñu daje mhm. nawetaan kii gañe nga gis ñaari xale yi ñaari koñ xale yi génn mhm. xaañante xeer toj oto jàmbur yi ba yow sa sa yoon sax da ngay mujj contourner imam foofu ma am benn laaj man sa daf ma mës a na ci sama xel mhm. suñu leader yi ak certains guides religieux mhm. est-ce que bëgg nañ jeunesse bi yeewu ah waaw boo parce que jeunesse bu yeewu doo leen mën a utiliser de est-ce que xam leen ma ko wax c'est ça dëgg la doo leen mën a def ay jaam effectivement pour doon seen sago mhm. maanaam jeunes yi tey ne ci que ñuy ne. Mm-hmm. ñu mën di nax. Mm-hmm. parce que jeunesse bu consciente. Mm-hmm. xam na ni duma ko te héritage la politique ak religieux. bari ci ño xamni tay jël nañ ay ndaw hypnotiser leen ba ño leen gënal seen gënal leen seen sur le plan religieux amna sur le plan politique. et c'est important sëriñ bi foog naa lii nga wax ni lu ci ama am solo la sëriñ dëgg mooy ki nga ñëw ci moom mhm. mu ni la sa ndey ak sa baay ñooy sa sëriñ avant man effectivement Pape Daw Góor Mbaye maa ngi koy nuyu dem mhm. démb jokkoon nañ téléphone lu yàgg sama xarit la nag moo ko Abdou Aziz maa ngi leen di ziar ñuy waxtaan lu bare bare bare mhm. mu may nattali mu ni Cheikh Hadj Abdou Aziz Dabakh dafa am benn góor gu ñëw ci moom ànd ak doomam fii ci pom bi mooy pantraine bu ndaw bi mu daan ne nee na góor gi ñëw ni ko ñaanal la sama doom gërëm naa ko sant naa ko nee na maam Abdou ñaa nii nu mu tudd Abdou Dieye na ko may loxo mu wàcc ci suuf ñu ni góor gi luy xew mu ni xale bi ñaanal ma allah yow mi dund ba am ngërëmu baay. yow ko ñaanal yalla nangu ko. jeunes yi foog naa foofu lañ leen wara orienter. ils sont mal informés. ils sont très bien politiciens jël leen en otage. Mhm. certains serigne waxuma ñëpp. ñen ci serigne si jël leen en otage. serigne bi yaa ngi wax lu am solo. effectivement ñii ci lamb bi. Mhm. do ci gis doomu président. do ci gis doomu serigne do ci gis doomu kenn manifestation am. ñu jël doomu jàmbur yi wàcce leen ci tali bi te yow doo ci gis doomu kenn ñoom ñi ngi extérieur di jàngi ne ci école yi gën a luxé yow yaa fiy rayante effectivement loolu jar naa bàyyi xel sëriñ bi maa ngi jéggalu nag dog bi ak euh, taalix bu xaw a gudd gi noonu la mais lu ama am solo la loolu moo am solo te loolay quintessence su sax c'est ça mi ngi noonu c'est ça moom mooy quintessence tout à fait moom mooy wax moom mooy waxtaan bi sax donc merci beaucoup ci li nga wax lu am solo la am solo la am nañ ci mbégte bu baax loolu moom mooy gis nga mm. loolu la professeur Abdou Aziz Kébé di wax léegi tarbiya mm.

kooku dañ koy waaw ñu ñu kii ko incha allah koy tàmbali dañ koy jàngal ko waaw ñu jàng ko ñu jël si benn cinq minutes mën ko àggali donc éduquer n'est yaa ngi ci xuwa ah. xuwa c'est-à-dire force yi force bi xamaas mhm. kon ndaw dafa soxla orientation mhm. ba bu demee nawetaan mhm. ci nawetaan bi wala ci làmb bi ñu daan mbërëm mais mbër mi nga supporté ñu daan ko wala avant loolu ngay def manif nga pej foofu ñu jàpp la wala nga yàq nga mais moom jël na ay millions dem yow amoo ci dara. Serigne Cheikh. Mm-hmm. notre professeur le grand professeur. le le grand philosophe. Mm-hmm. dafay dafay dafay nettali. Mm-hmm. ci diggante aatifa. ak nafs ak nafs. mu ni bari na ndaw loo xam ni. dañu dañu yaru yaruñu ko ni ñu ko war a yaree ba dem na ba aatifaam. maanaam nafsoom foowee aatifaam. c'est très bien waaw. dama seetaan benn match ah. pour dëggal li nga wax benn match ligue ligue des champions. Chelsea la woon ak Barça. Barça éliminé Chelsea. Mhm. ci biir Chelsea. jamono jooju ay Drogba amoon na beneen joueur allemand euh, xawoon daal critiquer maanaam arbitre maanaam arbitrage bi. Mhm. mais ñu gañale woon demi final mhm. mu am benn image boo xam ni waxtaanu seen Cheikh la dem mooy ñi ngi leen gañe gañe nañ seen équipe de waa Chelsea. mais ñom ñi ngi tàcc. ñi taxalol xoolal lool xoolal lool. wala joueur yi ni len def ngeen li ngeen wara def. effectivement manam mer maîtriser wu. lu jafe la ma gis ben xale. mi ngi joy mi ngi tàcc. ñi taxalol tàcc xoolal lool. ma waxu Serigne Cheikh. kii nafsoom. waaw la aatifaam ñun dañuy gagné ñuy yàq. ñu yàq ñu dañuy gagné ñuy yàq. waaw dañuy gagné dañuy daan suñu mbeur wala ñu gagné suñu équipe. ñu damu damm sànni fa taal stade ba dem parce que suñu nafs la ñu sa te ñun nee nañ ay taalibe alaaj Maalik lañ sëñ Touba Boukounta Ndiassane te mag ñun ñëpp ils ont ah. am nga exemple boo xam ne bu ñu la ko waxoon nga pardonné mais nga maîtriser sa bopp parce que seen nafs ñoom dañ ko roy mais nag ñun mooy li ma wax c'est dommage. c'est dommage amuñu orientation boobu la donc war nañu am orientation boo xamante ni. ndaw li war nañu fexe ba mu topp orientation boobu nga xam ne xamaasam njàmbaarteem ak yëg-yëgam du ko du ko yóbbu mukk ci def loo xamante ni lu négatif la waaw léegi nooy mën a jëlee référence maam Cheikh El Hadj Malick jàngoo waaw c'est ça du la mën a orienté si sëriñ bi bi nga yaakaar sax at ba at ngoo koy gis te moo koy gis da ngay rang mu ëf ñaanal la nga dem sëriñ bi <laughs> doo dem fenn kaa ñu ngi ci kaa bu critique doo déglu ay waxtaan xam nga yow yaa ngi ma wax ni ma chaque jour bala ngay tëdd 30 minutes di nga ko déglu waxtaan Serigne Cheikh chaque jour man idem man tam idem keneen noonu keneen noonu mais loolu boo xëyee am na luy présenté wu rek sa xel dem ci wax la ci Serigne Cheikh waxoon nga jëfee noonu dëgg la léegi nag orientation la ba nafs bi dañ ko yoree rek dëgg la min nafsi lawama ila nafsi kaamila kaamila loolu lañ koy def rek dinañ ci ñëw gën a ñëw ci incha allah beneen fo wax naa ñaari force waaw wax naa at tumux wax naa alxamas ñetteel mooy lu ñuy wax al quwatul ijtimaia ah. force ndaw si dafa ndaw dafa am force sociale. sociale société am. Mhm. ndaw ndaw lu sañoon. sa société kenn du la ci sa société sa société du dellu ginnaaw. dëgg la. ku sañoon tey sa penc mi nga nekk penc muy avancé la. Mhm. ndaw am na force boobu. Mhm. nga xam ne tey jii ndaw ñi bu ñu bëggoon tey jii tey jii bu xale yi taalibe tijaan yëpp ne woon tey bëgg nañu Tiwaawan set. mën nañoo joxe rendez-vous samedi. yi hmm. di ñëw. Hmm. wala suba ci dimanche bi. Hmm. suba Tivaouane ville du ko dàq ci at. dëgg la. deug la xam nga legui nak lolu buñ ko yéré ndaw moom mooy nga gis ndaw ño xamni dañ xëy sol sen ay yére ay t-shirt dem dem ben barab defar ko jëmba def reboisement def arroser ko dem sen yoon buñ ñu won koñ bu nek samedi chaque premier samedi voilà gis na sa président de la république son excellence def nako ki mais amul suivi amul suivi parce que parce que ndaw ña orienté wul orienté parce que amna orientation parce que tey jii ma wax la ben affaire seigne Babacar si Mansour al Khalifa bu ne woon ndaw tidiane yëpp bëgg na chaque samedi ñëw Tiwaawan defar ko wala

fa tabaarakallah ndaw ñooñu nag tubaab yi fexe nañ tam ba joué ci ñun mhm. suñu njàng ñu ngi koy yàq mhm. système éducatif bi yàq dëgg la parce que dañuy wax ne Afrique boo xoolee Afrique 65 mhm. pour cent population africaine au moins de 30 waaw ci lu wér xam nga ni 65 pour cent bu ñu amee moins de 30 ñooñu bu ñu leen formé jàngal leen jàng gu mat sëkk yar leen yar gu mat sëkk dañ leen ëllëgu réew Afrique mooy jëm ci kanam dëgg la te tubaab bi bëgguñu loolu moo tax fexe nañ ba gis nga ñuy yàq léegi ci terrorisme bi la ñu ngi ci système éducatif bi dëgg la ñu ci ñu ngi ci dëgg la dañuy dañuy orienté ci loo xam du ñu tala sax jàng du ñu tala xalaat andil ñu internet tout le temps yaa ngi ci TikTok di la andil di la fii daal ñu ngi noonu waaw te Marc Marc euh, Robert euh, euh, ki ki créé Facebook mhm. mais télé ay doomam mhm. mais amul amul amul amul kii yooyu amul téléphone doomam amul Facebook amul internet amul dara parce que xam nañu ni internet baax na mhm. xam nga mhm. waaye am na côté boo xam ni lu ci ëpp ñun mhm. ñun dañ ko dañ ko maanaam dañ ko dañoo glissé tam ci effectivement internet mhm. ñun lu ñu ñuy jariñ ñun lu mu ñuy loru ëpp dëgg la xam nga xale yu jigéen ñu ngi ci tiktok yi instagram euh, snap yooyu la ñuy nekkee loo xam ne mën nga def une heure de temps deux heures de temps xam ne mënoon nga ci mokkal leçon def ci ay exercice mais yaa ngi ci yooyu tiktok fecc affaire yu mel noonu baax allez beneen façon bi force bi beneen force bi nga xam ni ruux am na euh, ndaw am na ko moom mooy li ñuy wax ruuxul mubaadara Ah. maanaam ndaw dafa ba tey dafay nekk ci wàllu dama dafay delluwaat ci wàllu volontaire maanaam ndaw hmm. Hmm. moom rek moo am moom moo am jël jël dooleem société soxla dooleem moom mu ñëw jël dooleem taxaw responsabilité volontaire wu ngir defar péncam hmm. ndaw moom moo am force boo xam te ni tey jii bu société soxlaa loo xam ne doole moo koy def mag mënu ko keneen mënu ko ndaw rek moo ko mën dëgg la léegi nag war nañoo fexe ba tàggat ndaw ñi ba ba nga xamante ni bu mbir amee nga xam ni force moo koy def force mm-hmm. physique fii mm-hmm. ndaw ñi mën a ñëw jël seen responsabilité daf ko ci anamu positif mm-hmm. mais il faut ndaw yooyu ñu tàggat leen dëgg la ma jox la ci exemple boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis nga xare Uhud xare Uhud bi ko yonent bi salaasam di tracé xam nga yonent bi armée la yoroon armée boobu dafa dafa jël ay soldat xam nga dañ soldaar pour ñu jël la yóbbu la ci armée bi faw ñu defal ay test ba xam nga apte nga wala tu es inapte yonent bi salaasam am ay ndaw ñoo xam ne dafa leen teste mais ñu inapte te imam gis nga bëri na ay ndaw yoo xamante ne ñu ngi leen di cité jamono yonent bi salaasam te jamono yooyu ñu ci bëri majeur guñu woon hmm. ba pare moo taxoon seen tur Hmm. gis nga bu dinaa la indil ay exemple yoo xam ne ci xare Uhud bi yonente bi sallallahu alayhi wa waxee ndaw ñi ne leen ñii ñoo dem hmm. ñoom ci seen bopp ñoom ñoo jël seen fa seen initiative ne yonente bi suñu âge nga xool yaakaar ne ay ndaw lañ mais ñun am nañu force da force dañuy jël hmm. ñi kii ci la bokk Abdullah ibnu Omar bii ma wax doom Seydina Omar Nu'man ibnu Bachir ci la bokkoon Hakim ibnu Xuzaam ci la bokkoon. Rafi ibnu Xatib ci la bokkoon. Jaabir ibnu Samura ci la bokkoon. ñii ay ndaw lañu woon yoo xamante ni. wallaahi boo dee jàng ñi war yoon Yonent bi salaam di nga gis lañ ci taxaw. te ñoom imam ñii waxum duuna sinul buluux. ñii jamono jooju majeur guñu woon. Abdullah ibnu Omar xare Uhud bi muy taxaw Abdullah ibnu Omar bi ngay dégg. nga xamante ne ci droit islamique. mazhab imam Malik moom mooy référence am. effectivement parce que am na sax ñu ni buñ doon wax 100 pour cent ku roy Yonent bi. ma Ablaye ibn Omar Ablaye ibn Omar nee nañ même yonant bi fu mu mës a romb toog fa moom bu fa rombee dina toog toog lu fa toog toog lu fa fu mu romb fu yonant bi daan dox yor yor bant sax mu wadd bu fa àggee dina wadd wadd lu bantam pour wan ni su doon ku am roy 100 pour cent Ablaye ibn Omar boobu te boobu nekkagul woon majeur ak tur bi mu am ci l'islam yëpp lam yablu baaw lam yablu baaw ñoom ñëpp allahu akbar te boo dee jàng ci usul mazhabu Malik borom xam dañuy wax ne الصح الاسانيد عن مالك عن نافيه عن ابن عمر اسكي طبعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم امام مالك مو بلني جيلا جيلا ما كنت جيتي نافيه بروفيسور نافيه عبد الله ابن عمر جيخنا عبد الله ابن عمر دق الصح الصح الاسانيد اسكي نيوم نيو نيو تي يونتي بي سلام نكو لوتاخ جيلو نيو يونتي بي اي نداو نين تاي بوبو حكيم ابن حزام مام نداو لون مي داف كان جسيما كونكال لون دا امون جيم مي خالي لون امغول كي امغول ما دا فا تيلا بريكوس دا فا تيلا بريكوس يونتي بي سلام نكو داغي دم léegi ñoom ñoom ñoom ñoom euh, Jaabir ibnu Samira ak Abdullah ibnu Omar ñëw ne ko lu tax nga jël ko tëjaloo ñu hmm? yonent bi ne ndaw ñu ne ko kii ñoo xakim euh, yi ñoo ko gën a dëgër ñoo ko dàq daw jaral na leen yonent sa dafa leen compétition ñu course ba ñu raw ko yonent bi validé ñi sallallahu alayhi wa sallam donc loolu nga hmm. xamante ni ndaw daf koy soxla hmm. beneen force bi mujj bi mooy ruuxul mu wàtte na maanaam mm. civisme civisme waaw mu waat la ndaw dafa am mm-hmm. civisme mm-hmm. maanaam civisme dafay nekk ci moom mm-hmm. civisme boobu nag bu ñu ko ko orienté tàggat ko ci lu baax moom ndaw li dina fexe ba kon tey Sénégal doo dem doo romb fenn ci dëkk bu gis fa mbalit wala insécurité wala insa insalubrité wala nga fekk ay lamp yi ci mbedd mi ñu toj lamp yi wala ñu jël poto lamp yi wala kano yi ci kii bi di ko di ko dindi di ko jaay loolu ay ndaw ñoo koy def kon yooyu ñuy jël ci wane exemple moral ak yooyu civisme ak yooyu waaw citoyenneté mooy mu watt na ba ñu sànni mbal effectivement c'est ça voilà doo tour ndox yooyu mooy force yi nga xam ne imam ndaw daf ko am mm-hmm. loolu moom mooy euh, ndaw kon mm-hmm. mais nag bara moo egg foofu dafa am ay étapes yu muy jaar moom ndaw li léegi nag voilà maraaxil yooyu mm-hmm. parce que nit ki bu juddoo ba keroog muy faatu instant bu ci nekk am na lu ko charia tënkee âge bi ba âge bi lii la mm-hmm. Mm-hmm. âge boobu bu fa tollee mm-hmm. lii lañ fa war def loolu mooy waral bu demee ba tollu ndaw nekk ndaw day def lu baax dëgg la bu fekkente ni dem na ba nekk mag bu nekk mag moo xamante ni mag mu jëriñ péncam la dëgg la ñu naan mag mat naa bàyyi ci réew ci du wér mooy nag ndaw loo moo xam ni ba muy jaar ci état bi defar nañ ko nii première étape étape bi nga xam ne moom donc léegi ñuy fàttali yéen a ngi ci Malikia TV leeru Maodo ci émission al islam bi nga xam ni dafay jàngat euh, ay point points yi nga xam ni euh, intéressé na euh, ndaw ñi surtout tey yaa ngi ci ndaw ñi léegi euh, yaa ngi dugg nag ci maanaam étape mm-hmm. yi nga xam ni ndaw moom lay jaar ak étape boobu lan la ci war a def incha allahu taala di fàttali dix minutes moo ñu desee incha allahu taala ñu manam delo la kaddu gi inshallah amna solo bismillah inshallah jere jërëjëf imam kon ñu téwlu étape yi ñu teewlu étape bi ñu jàll ci rek. inshallah duñ koy junj parce que temps bi. may bisimilah bu dëkk bi. moy tawru tufula. hmm tufula moy xale. waxon nako détaillé won nako ci feulé ak. tiflu baat bi ñu ko jëlé même baatu tiflu xam nga moy firi xale. xale waaw waaw enfant. enfant bo jëlon baat bi nga def anagram waaw manam nga dëpp mo bi waaw dëpp ko. waaw daf lay jox baatu lutf tiflu ñett tifl ta toola fa laam nga jël laam bi waaw indi ko ci kanam kanam jël baat da ngay changer laam bi waaw effectivement da nga koy dëpp da nga koy dëpp rek waaw mu jox la lutf allahu akbar mooy quelque chose sensible sensible ndaw dafa sensible moo tax marxalatu tufu la marxala bu sensible la boo ko ratee rek jeex na ndaw li ñoom dund gi day di topp noonu macha allah boobu nag mi ngi tàmbalee min awwali mawli mawlidihi a a awam hmm. ni ngi tàmbalee diggante bi muy jour bi muy judd hmm, de 0 de zéro à 7 ans foofu jikko bu doomu adama di am hmm, la koy am la xam nga manam dal bu day tari day tari <laughs> mais fi dal moy formation ni ngi mais jang euh, euh, ah. bu ki moko créé euh, psychanalyse Freud Freud waaw Sigmund Freud Fred, Freud waaw Sigmund Freud nee waaw un très grand philosophe. du mag sax waaw man bëggoon naa ko ba def philosophie. parce que L2 laa def à l'université ah, kii Blaise Diagne. Blaise Diagne waaw. Mhm. mais Sigmund Freud xam nga mo créé psychanalyse. Mhm. mais nee na bo gis manam dañu cicatrice bo gis ci mag rek. Mhm. góom ba ba muy xale la dal. très bien loolu mooy jikko bu ñaaw bo gis ci mag rek. ba muy xale ba muy nekk xale dëgg la. léegi de 0 à 7 ans fofu parent bi dafa war top xalé bi parce que étape bu sensible gis nga dangay fekk sa doom imam mu toog ci poto chambre am ñu baal ma ci baat bi di di di jëf di di nekk ci toilette am waaw am na woy jur yoo xamante ni dañ koy bàyyi foofu xale bi dina pare toog fa di woy ab woyam rek waaw naan léeg-léeg sama yaay booy pare naa xam naa li nga wax li ñu bàyyi ko foofu nan ko xaaral ma hmm. eggale fóot mi dëgg la xaaral ma def lii te xamuñu ni lu muy xale bi lu muy gën a yàgg ci pot bi hmm. ni ngi développé mabdaul lazam ci la shawariya am allah maanaam ngi def ci moom ay jikko yu bon yuy dem mooy waral xale bi màgg ñu naan dafa tàmm foofu jigéen bu dee góor ñi dafa tàmm foofu jigéen bu dee mhm. jigéen dafa tàmm góor ñi mhm. fekk mi ngi ko tàmbalee ci potu parce que rapport bi mu am ak bi nekk ak noonu dina dem ba xet du ko géné du ko géné du amati kersa du amati kersa ci dara mu ngi développé mu ngi mi ngi indi mab daul lazam mu ngi koy développé ci àllaaso waram mm. ci laasu waram mooy inconscience am mooy dina dem ba def dara lu bon ñu ko ñu di ko ci condamné fekk boobu du moom mais lâche je quoi parce que yego ko pas. regretter le recteur de l'université de Tivaouane Serigne Babacar mhm. il est allé plus loin mhm. Nana, il mhm. yara ngi ci ci ci yow papa ji lan pour les ko lolou def loolu nga koy transmettre dom bob bu juddo la ngay fagu bu lewul dom ji du meuna bax pour rek te dire que ñom ñom ñom tabarakallah wax nga lu am solo. de 1 à 7 ans de 1 à 7 ans. lu ci raté rek. fofu nak moy marhalatu tashkil. marhalatu tashkil tashkil. la budd an nu shakkila. naam fiha abnaana. fofu la ne suñuy dom yi. ak suñuy rakk yi foofu lañ leen di formaté nak formaté ñu nekk nak ñi nga xamni ñom lañu bëgg ñu nekk. oh gore way yaa ngi dégg am na solo effectivement beneen bi bu jigee ci marxala boobu deuxième mooy marxalatu siba mooy xale nga xam ne kii xale la mooy mi ngi tàmbalee min sabati awan ila xamsati achara an de sept ans à quinze ans à quinze ans sept à quinze ans foofu nag marxala bu garaaw la tam imaam waaw parce que foofu li fa charia wax mooy fiiha taalim wa tarbiya war nañ koo jàngal war nañ koo yar yar mais yar boobu dafa laaj nag boobu nag yar boobu xool la di ko laaj parce que foofu xale bi fofu lañu amé amee lu ñuy wax al awamil hormoni ah moy ñu wax les facteurs hormonaux fofu la xale bi di ay ay hormonam di changer hormonam di changer di changer effectivement xam nga bu dee jigéen am hormone ñu wax euh testostérone ak estrogène xam nga. Mm-hmm. baal ma ci baat bi bu ma juumee. Mm-hmm. foofu moom moy changer moy indi xalé bu jigéen bi mu commencé di changer mm-hmm. moom mooy génne li ñu unuus maanaam jigéenam. di wone ni ay signe jigéen la. fofu loolu lañu ñuy âge puberté. puberté voilà effectivement voilà mom la arab wax sinnul muraahaqa. Uh-huh. foofu la lay amee. foofu nag la xalé bi commencé 12 ans yaakaar na ni góor gu ko nuy sax mu yaakaar ni da ko koo sopp da bëgg. fofu nak bu amul orientation rek mën na def musiba. mom la way kat bi doon wax ni léeg-léeg foofu ngay toll buñ la waxon asaman si day. daam sax nee na nee na boo joxoñee maanaam mu taxaw effectivement bu dee xale bu góor yaakaar na ni waratu la ragal kenn waratu la faale kenn foofu moom mooy marxal su paree foofu nag su ma tabda u marxalatu saaba fi xayaati insan min xamsati achara ila arbaïn à partir de dix sept quinze ans yooyu marxala bi gën a jafe nag ci dundu doomu aadama bi gën a sensible foofu lay tàmbalee muy marxalatu shabab foofu nag lay tàmbalee الله اكبر كون اني الطفوله صبا شباب نيت ييب بوكول ديسان بو خسي با نيت كي ام 40 عام لا تا نيك خمنا دي رانك غنا ديفلوب ان شاء الله ديسي غا 5 مينوت داكور مون غا فو تنك رابيدمون ان شاء الله با ابار ابار ابارتي دو 40 عام كون دو 15 ا 40 عام فوف نا لي ني وقتان مرحله الشباب موي سيكل جينيس فوف لاي نيك دو 15 ا 40 عام واو ني نكوكو جين لا باتاي سو جيغي am na sax ñu wax cinquante ans mais bu jigee ci marxala boobu baada sinnil arbain yadduxul insaan fi marxalatil kuhula ila xamsin de quarante ans à 50 ans mu dugg ci marhala marxala bu ñuy wax kuhula kuhula kahl kahl moy ko potam mooy moy mbagnu rus mbañu rus ci waw ci wolof nag mbañu rus commencé nga nak lépp mat nga mat nak maturité maturité ñëw na ci effectivement nga xam li nga wara doon fofu lay feeñe nak carrément الله اكبر مي دال بو ايشيغي تي مارت مانا مرحله الطفوله بارك effectivement داي ام امباكت فتبارك الله داي ام امباكت ام امباكت ام امباكت بامو جيخ فتبارك الله لغي بو 2050 الى 70 بو امي ديغنت 50 à 70 70 70 ans فدون تسمى بمرحله الشيخوخه Cheikhoukha Cheikhoukha effectivement foofu la ñu ñëwee nag ñu ne mag nag ñëw na mag gi góor kii kii mag mag gi góor gi ñëw góor gi ñëw na voilà góor gi nag léegi góor gi nangam waaw góor gi nag nangam ndeysaan waaw góor gi xanaa foofu waaw góor gi waaw dëgg la dëgg la yaa jamono yi ñu doon yëpp yaa ngi ci ngóor si fa tabarakallah yaa ngi ci góor gi macha allah góor gi foofu nag marxala boo xamante ni nit ki nag day màgg diko def nak bamuy am 70 ans wamin min sabaina bu amé 70 ans ila an yati al ajal 70 ans ba keroog nak yàlla yéex mu faatu yàlla yéex wallahi lañ tudde arzal al umr mom la alxuraan di tuddu ila arzal al umr ila arzal al umr fofu la alxuraan li do lolu lii moy état bi doomu aadama jaar sha allah mais ahamuha ci ëpp important ban mo ci ëpp doole moy marhalatu shabab mo ci ëpp importance de 15 à 40 ans parce que fofu le islam soxla nit très bien foofu la nit dëgëri mhm. ñi bëgg lu baax foofu la ñu soxlaa nit ki mhm. ñi bañ lu baax foofu la ñu koy soxlaa pour mhm. utiliser ko moo tax tey ndaw ñu bëri dinañ ñëw ci ay influence parce foofu boo fa xasee ba passé soxlaatuñu la dëgg la ci lu wér lu tax gis nga yonent bi may ni la ci benn xadis salaay bi salaasam nee na lan tazula خدم عبد يوم الخيامة حتى يسأل عن أربعين الله أكبر عن عمره فيما فيما أفناه بل وعن شبابه فيما أبلاه نيار. نعم. وعن علمه ماذا عمل به مه. وعن ماله من أين كسبه وفيما أنفقه الله أكبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم من ينتيو من يوم القيامة لن تزول خدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعين حديث بو أم يعني صلى yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na imam yow man xiyaam دو ki du bouger dugg aljanna mukk lu dul ñi dañ la poser ñeenti suñu examen di nga ko lijjanti ak sa borom balaa ngay dugg ak balaa ngay dugg ñeent yi ñun suñu examen fii Sénégal imam deux tours la rek waaw da ngay jàll premier tour waaw amoo ko nga jàll deuxième tour waaw mais yow ma xiyam quatre tours la premier tour bi yàlla dina laaj an dinañ ko laaj an umri yi dundam. yow sa dund. fii maa af naaw ci lan nga ko jeexal. ci lan nga jeexal sa dund. muy benn juddoo ba nga faatoo waxtu bi. ñaareel bi. mooy wa an shabaab yi fii maa ab xoolal foofu la moo la premier dund. mais sa dund mooy bi nga juddoo ba bi waaye lu tax ñu laaj la ko ba pare. Mhm. ñu jëkk ikkatiwaat laaj la sa jeunesse. Mhm. ci lan nga ko passé. Mhm. ci ñeenti étape yi nga tudd maanaam tuufu la siba. Euh, shabaab ak euh, maanaam seyxuuxa. ñeent yëpp yàlla laaju la ci benn yomal xiyam lu dul sa ndaw donc am na solo très bien très bien ak sa alal ci lan nga ko jexale fa tabarak ci lan foko jele ak foko ak sa xam-xam ci lan nga ko jëriñoo jërëjëf professeur lan ngay tagatu ci 2 minutes yu dess say soppe say xarit amna suñu mbokk yu bax yu nek France ma ngi koy wax kérok di la woo téléphone soxna Njaay di soppe Cheikh hadji abdou rassid Dabakh mi ngi ba Paris nek France ak ay mbokam waxtu yu motax yeneen ñaari ñaari xarit itam ñu ngi topp waxtaan wi euh, ñu ngi lay béggee euh, ñu ngi lay ñaanal yàlla incha allahu taala am na yu bant yu bari yu ñu wax euh, di gërëm xalifa bi sëriñ Babacar Sy Mansour yàlla ñaan yàlla guddal fanam yokku wéram naal bi mu am ci jumaa ji yàlla na ko yàlla mottali di wax nag bu leen fàtte pins yi ngeen ciy jënd ñu ngi koy wéccee 5000 francs ñoom wax nañ waa jamaatu nur wa sunniya ci ñan ngay rapproché pour ñu mën ko jënd beneen bi ci des Cheikh Hadj Maay Si Maodo ñu ko nuyu sëriñ Abdou wax naa ni woo na téléphone di la gërëm euh, bërkaati démb di la ñaanal euh, nee na kontaan na mu ngi ci jàng ñu ni koy ñun yaay suñu sëriñ yaay suñu référence donc loolu gën nañu gën a jox fit ak euh, njàmbaar ci jeunesse bi nga wax ci ñu gën a xam ne émission bi nag léegi ndigal la waaw c'est le recteur de l'université ah, moo ñu moo ñu jox ndigal di sant yàlla di gërëm waaw la lan ngay tàggatoo mhm. waaw sant ñëpp rek comme ni ma waxee sant la mhm. sant sañuy technicien yi nga xam ne ñoom Trezeguet ak Trezeguet Souleymane Souleymane mhm. ñu ngi leen di nuyu Cécile Marème Cécile Marème ak euh, Mokhtar Ndiaye Al Amin Mokhtar Ndiaye Al Amin. Mm-hmm. aussi sant euh, Hadj Dame Diouf mi ngi ba. Espagne maa ngi koy ziar mi ngi mm-hmm. mi ngi bëggee di topp émission bi. Mm-hmm. Euh, suñu tabaarakallahu jan jar ba soxna Fabine Tollo aussi mi ngi suivre émission bi. moom daal mu dëgg la. ñi koy suivre daal xam naa ne damay bàyyi ba émission bi ñëw ma bind soxna Ndeye Fatou Kébé Habib euh, Habib Kébé ca France waaw sama maam euh, Ousmane waaw ñu ngi koy ñu ngi leen di ziar bu baax di ziar ñëpp rek xam nga mm-hmm. di di nuyu ñëpp soxna Amine suñu bàjjan ay dañang ca Tiwaawan mm-hmm. moom chaque fois daf ñuy suivre mm-hmm. day woo doom ji ne ko waxal Tidiane ne ko maa ngi koy suivre di ko ñaan bàjjan ay dañu ngi koy ziar bu baax a baax di di di di ziar ñëpp di waaw sama yaay ci HLM aussi ziar ñëpp bëgg ñëpp daal dinañ mos sa bind liste daal sant ñëpp rek tabarakallah merci beaucoup imam jërë ngeen jëf mbokk yi kon émission al islam mi ngi noonu thème bu am solo man vraiment mhm. euh, j'ai été séduit par sa pédagogie allahuma la adur rafet na euh, maa ngi ciy jàng sincèrement euh, ndax voilà ànd naag xam-xam ak pédagogie Euh, yal na yàlla fay la guddal sa fan yok sa wér jërë ngeen jëf mbokk yi très égé moo doon réaliser émission bi soxna Cécile soxna mariam souleyman ñep ñu ngi leen nuyu waxtaan amin yal na guddal sa fan yok sa wér jërë ngeen jëf mbokk yi ci ba benen euh, émission al islam ak professeur Cheikh Tidiane Kébé ak imam Jawel Kouaté wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu malikiya leeru Maodo